Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien ñu ngi nuyu suñ internet yëpp wa tey waa Yelli TV ñoo ñëwaatoon indi leen yenen xeetu baax-baax pour walum goor mais avant tout d'abord da ngeen ni abonné wu bës kolos vidéo buñ ñu munti automatiquement ngeen am ko tay nak liñ leen indi doon ci walum goor ñi la assise boo xam day yokk énergie vitesse endurance yépp lay yok astuce bi moy lan butéelu coca ngay jënd sotti ko ci verre ba mu fees nga ut benn sachet kafe bu 50 francs nga sotti ko ci mélanger ko mélanger ko jël ko nga naan ko avant une de temps nga door a tëdd tey nag loolu lañ leen indi doon suñu mbokk internet yi day yokk énergie baax na ci góor néeg bi dina neex guddi gi dina yàgg bu leen fàtte nag abonné wu. bës colos vidéo bu ñu munti dugal automatiquement ngeen am ko bye bye